jaayante yi wéy di am ba léegi ci liggéey bi nga xam ne waa Touba sa kanam noo ngi liggéey ci dëkku sell bi di Touba ba tax na waa fédération de travailleurs di bâtiment yëkkati addiy ju am solo mu toll ci ñaari tonni ciment yu teg ñeenti saaku jëbbal ko waa sa kanam ngir barkeeloo ci liggéey bi nga xam ne Cheikh Amadou Mountakha daal dina koy jox waa Touba sa kanam ngir li nga xam ne mooy jëm ci wàllam tëli yu yàqu yi ak mbedd yi nga xam ne day taa ngir ñu jàpp ci bu baax baax ba lépp yemb waa fédération des travailleurs di bâtiment di kuréel gi nga xam ne ñu yëngu ci wàllam ciment ak fer ak béton ak lu ci def liggéey bu am solo boobu jëbal ko waa tubaa sa kanam ñenn ti ñoom nag sànn nañ ci ay kàddu ñu teewlu leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit di mbokki taalibe yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu fédération travail de bâtiments bu Sénégal ci njiital président Daouda Sarr bi nga xamante ne si moo jiite 14 réseaux Sénégal yëpp ñu ñëwoon fii nag ci tubaa ci kanam yàlla dogal mu nekk ci kàddu Seer Seck nga xam ne mooy coordonnateur Touba bi ñu doon barkeelu ci lii nga xam ne mooy liggéeyub Serigne Touba bi nga xam ne amuñu lu dul moom yàlla dogaloon tey jii ñu andi fi deux ton benn saak ñu andi woon euh, andi woon ko fii nag ci Daaru naan fekk fii ki nga xamante ne si moom la fi yàlla teg Abdou Khadou Sakho moom moo ko jël si woon ci oto bi andi ko fii ci nga xam ne mooy dépôt bi ñu ci doon barkeelu ci liggéey bi. di ñaan sëñ bi fulal ko bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fédération Travers du bâtiment Moustapha ñoom la Touba Ndindi Sëñ Fall maa leen di siyaare ñëpp ci njiital suñu président Daouda Sarr siyaare ñëpp ak coordonnateur yeeg ñëpp ci gàttal euh, di teewoon fii ci Touba ci kanam doon fi indi ab ciment comme ni ko porte parole waxee maam Góor euh, di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wër. parce que Sëñ te lim naal yëpp su ñaan suñu borom sottal ko ba mu naal yeneen. Mm-hmm. barke al Xadim di sant waa Touba ca kanam itam ba ca kanam yàlla di leen ñaanal ñu yàgg fi lool te wër. mbokk yi sama xarit ñu àndal ñëw fii ci Touba ci kanam man coordonnateur Saer Seck Touba travail du bâtiment maa ngi leen di ñëpp di leen ziar di ñaan suñu Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te wër ah, tey nag dañu fi ñëwoon indi fi suñu jaayante ci Touba ci kanam ñun fédération travail du bâtiment du Sénégal ci président ah, Daouda Sarr. nga xamante ni moo ko jiite fédération travail du bâtiment nag mën na ne mu ngi fépp mën na ne am nañ membre sax à Brésil Sénégal nag moom foo ne salaamaaleykum suñu membre na la maaleykum salaam tey ñun ñoo boole woo ñëw fii ci Touba si kanam waaw ñu indi fi lii nag ah dinaa ci ah, sànni ay kàddu yoo xamante ni nag dinaa ko jàlle suñu mbokk Touba yi nga xamante ni ñun ñoo bokk dëkk bi ndax ah, bu fekkente ne fukki ni dañuy defar itam fukki di yàqit mën naa ne coow ay bari waaye am soo 2007 euh, 2008 Serigne Saliou bi mu koy doog a defar tali yi benn daawu ci taa ndox mu ñëw day jàll waaye léegi dañoo xool ne temps bi yëpp tali day taa te li ko waral lenn ci askan wi la ndax bu fekkee da fóot sa kër wala nga raxas sa kër waaxu ca canal ba ca kaw tali ba nga sotti ko ca ba canal ba fees ci noor bu nawet ñëwee ndox ma fu muy dugg du dugg fenn yenn ci borom kër yi itam di tabax sa diggante ak tali bi nekk 2 mètres wala 3 mètres nga jël kab yopp suuf na ko tegg ci digg trottoir ba nit ñi duñ am fu jaar genn wàll ga nekk ci tali ba bu ngelaw ñëwee naawal dugg ca canal ba canal fat boobu canal yaakaar naa bu ñu ko sikkatul bu ndoxum taw ñëwee itam du jàll dafay taa loolooy waral tëli yi yàqu yëpp looloo ko waral bu ci ay loxo nekkoon ñu koy sekkat ci borom kër yi di xool ni ñuy wàccee seen suuf si ci tëli bi problème du am ndax dañuy wàcce suuf ci kaw trottoir ba nit bu ñëwee sax du am fu mu jaar day mujj wàcc jaar ci kaw tëli ba te dancé mën na am fu oto mën na ko laal wala dara ak dara nañu organiser wu kuy liggéey te sa kër amul espace nga xool na ngay liggéey soo wàccee suuf léegi wut ay ay minebar léegi ñu ko léegi du am jafe su ma jaalee si loolu itam dinaa ci ñaaxaat borom saret ndax fu mel ne Kayaar Ndoy dëkk la boo xamante ni doo gis benn fas nefere ci kaw tali bi dañ ko organiser fas bu ci nefere borom dina fay 6000 francs li tax loolu dañuy wut benn saako lay taay ko ci suuf fas bi fas bi bu neferee day dem ci saako bi saa boo wàccee nga wut foo ko sotti du am jafe-jafe moo boo ubbi woon tey canal yi Touba fas ñoo ci nekk te loolu jot na ñun waa ñu jóg taxaw ci xool nuñ koy saafara mooy mel nii nii rek bu Touba ci kanam nekkee jàmbaar te ñun askan wi jàmbaare wutun daanaka waa Touba ci kanam li ñuy liggéey du feeñ kon nañ am fulla ak fayda jël mbir mi ko suñu fi bopp canalisation yi kenn ku ne sa koñ nga nga rayante ci canal yi bu ñu ko sekkar cee ndox mi day dem fii ci kaw tali bépp am canal boo ko xoolee suuf moo ko téye ndox mi muy penc mbay dugg ci biir canal yi askan maa leen di ñaanal jàmm képp koo xamante ni yaa ngi dëkk Touba ak li ko wër ñoo ngi lay woo ci Touba si kanam nga ñëw jàpp ci ndax amuñu dul liggéey sëñ Touba ndax ñun ay taalibe sëriñ Touba dong la waaw ñoo ngi siyaare sëñ Abdou mi nga xamante ni tam moo ñu dalal wax dëgg yàlla yombalal ñu mbir mi ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom itam di ko ñaanal mu yàgg fi lool yàggal liggéey sëñ Touba ak ñi nga xamante ni ñoom lay àndal ci liggéey sëñ Touba jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa Euh, waa association travail de bâtiment maa ngi leen di ziare bu baax session bi nga xam ne moo féete Touba ak mboolem session fu mu di nekk rek ci réew mi ak bitim réew. Euh, di leen jaajëfal bu baax ci liggéey bu rafet bi nga xam ne nii ñu ngi koy ànd ak Touba ca kanam di ko def ndax ñoom bi nga xam dégg nañ wooteeb sëriñ bi teel nañoo wuy si ndax sëriñ bi da ne képp koo xam ne mën nga ñëwal ku am xalaat ñëwal ku am xam-xam ñëwal moom ñëpp la woo daal ku doole tamit ñëwal kon yàlla ñëw teewal ko fii ci liggéey tubaat ci kanam mi kon ñu leen ciy jaajëfal bu baax di leen ci sant tamit bu baax comme ni ko ñëpp defee rek ku ci ne indi sa xéewal ci wàllu ciment ñoom i defee nañ ko noonu indi nañ fi 2 tonnes 4 sacs waaw xëy na nag ñoom xeeb nañ ko waaye loolu xeebuwut ndax sëriñ bi moom lu jëf néew-néew rek ah, xam na xol ba ko jëf nu mel waaw kon boog ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di leen ci gërëm bu baax rek waaw tey ñaan suñu borom yokk xéewal yu baax gën leen a jubale gën leen a bendale ci barke Serigne Touba jërëjëf.